asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ñaan ngeen jéggal nu te ngeen ñaanal nu jéggal na nu ñëpp yal na nu ñëpp jéggal ci jaahi xeyrul alamin yal na nu yàlla nangul sunuy koor tegal nu ko fa mu teg koori baay koori gaayu baax yi kii jéem a def vidéo bii nag ndongo kase rek lañ koy wooye du lu man nag loolu jéem rek tey nag li ma bëgg a joxe mooy ndéwénal laa bëgg a joxe ndéwénal goo xam ne nag bindu Serigne Touba la boo xam ne Serigne Touba dafa wax ne képp koo xam ne man nga soo jullee ba sëlmal bala ngaa wird di jël sa nga jàng baat yi door ko door jël sa kurus wird la ca Sëriñ Tuubaa wax bëgg ngeen dégg ko képp ku ko mën nga jëfe ko ngir jëm yàlla ak ragal sawara ak dugg àjjana loolu rek la ci yàlla di ci Sëñ Tuubaa diggee Sëñ Tuubaa nee na subhaana abad subhaana waahidul qahaar subhaana fardu samadi subhaana raafiu samaahi bi xayri amadi subhaana man basata lardi alal maa i fa jamad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 nga wax baat yii lam bind ca suuf teg ko ci baat yooyu mooy man laa na la saamahunna xabla tasbihun duburu kullu salaatin laa yamnuhu min doxalil janna ilal mawta nee na képp koo xam ne kii yaa ngi matale loolu soo sëlmalee bala ngay wer da nga wax baat yii li dox sa digganteeg sa àjjana mooy sa noyyi gi ngay noyyi ci kaw suuf loolu dong mooy dox sa digganteeg sa àjjana loolu nag joxe naa ko ndéwénal jox ko taalibe yi di sàkku taalibe yi nga xam ne yàlla baaxi na leen ñuy julli waxtu juróom ñu jël ko baat par baat jéem koo man bu ñu sëlmalee ñu jàng ko bala ñoo taaya sëñ Tuubaa tàbbal leen àjjana bi xëyri isaabi